ma de village Mahamadou Diop chef de village Gabar 2 maanaam tey xale yi li ñu taxaw di ko dénoncé ah, lu war la seen droit la ñu def suñu suuf levez-vous les mains monsieur le maire soxlawuñu dërëm soxlawuñu

la ñu soxla ñun amuñu lu dul suñu suuf xeexuñu xulawuñu sàccuñu réewuñu kenn ci yéen mosuñu ko interpellé te ci homme de droit yi leen par la brigade ba xam ale bu gabar de mos na def benn injustice kon li ñu soxla mooy lu ñu moom mooy suuf lu ñuy suuf du ñu nangu benn kenn koo xamante ni ñëw na fii du ñu daay doole suñu suuf wax ni le nangu boo xamul sa droit ñun xam nañ suñu droit di wax ni monsieur le maire la ñu bañoon 2003 moom la ñu bañ ba tey la ñu bañoon 2011 moom la ñu bañ bañ ba tey ndegam ba ngay nekk au pouvoir la ñu taxawoon jàmmaloo ak yéen di leen laaj ndax pare ngeen pour jàmmaloo ak monsieur le maire. dama ni maa ngi leen di laaj ba xam pare ngeen pour jàmmaloo ak monsieur le maire Jamil Odiba.

waaye commune bu Léona commune bu Léona dugg si leen fi ndax li fi am jaaduwul lu fi am jaaduwul duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg soo xoolee village bii ñu naan Gabar 2 dara amu fi soo xoolee village bii ñu naan Gabar 2 gëstuwu leen ndox amu fi courant amu fi boo gisee poto nii taxaw dañu jéggi jëm ci village yekkat neex ndox bàyyiwuñu ci xel dëkk bi ci ay garga la ñu dëkk ci ay jaxañ la ñu dëkk ci ay garab la ñu dëkk kon nag du ñu nangu mu bàyyi ñoog loolu ñuy jaayante di wax ni nag ñun beratuñu paa yu bare mënatuñ dox paa yu bare génn tuñu mag ñi télé nañ ndaw ñi feebar nañ xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax produit chimique bi nga xamante ni ak engrais chimique bi nga xamante ni moom la ñuy dëkk di ko noyyi est-ce que depuis boobaak léegi suñu population di souffrir est-ce que depuis boobaak léegi suñu population di bañ ci li nga xamante ne mu leen di teg ak ci seetaan bi mu leen di seetaan ndax tey di ngeen bàyyi mu jaxataatee seen suuf ma leen di laaj mani ndax di ngeen nangu monsieur le maire di jaay suuf si ma leen di laaj. ndax xale yi bu ñu bëggee tàggatu sax am nañ foo nga xamante ne autorisé nañ leen fa di tàggatu ma laaj ndax su ngeen feebaree am ngeen fu ñu fajoo ma leen di laaj ndax tey bu ñu bëggee julli am nañ fu ñu jullee ma leen di laaj bu ñu bëggee def suñu yenn activité ndax am nañ lieu public bu ñu bëgg a dund waa ak loolu lépp nag la la ñuy mën a comprendre monsieur le maire amul benn priorité ba nga xamante ni moom la ko jox population bu Gabar 2 moom la ko jox population bu Gabar ba ma dee bëgg ñëw di leen utiliser kon nous n'accepterons jamais au plus grand jamais c'est maintenant ou jamais dañuy xeex ak moom dañuy jàmmarloo ak moom dañ koy wax ni ñun xam nañ suñu droit dañ koy wax suñu suuf si ba ñu ci dara. asalaamaaleykum mbooloo mi man la Moustapha Diop président ASC Gabar di waral li woote bi mooy dañu am lu ñu naqadi suñu maire monsieur le maire daf ñu teg injustice boo xam ni daf ñu naqadi depuis 2003 ba léegi mi ngi ñu koy teg suñu suuf si te léegi benn problème la ñu am muy suñu suuf dañu bëgg a dëkk heure saa suñu bëggee dëgg muy yebal ay conseil ñëw fii ñuy caxat caxatee suñu suuf te loolu duñ ko nangu duñ tey duñ ko nangu ëllëg dañu am lu ñu naqadi lu ñu naqadi nag moo tax ñu tey jii ñu woote pour dénoncer que ba état Euh, Ousmane Sonko yëg li ñu naqadi li ñu naqadi lenn la muy suñu suuf si bëggatuñu fi gis ma Samba gis bëggatuñu gis ma Demba ñu suuf nañ ko bàyyeeg suñu ñun waaw nañu bàyyeeg suñu suuf soxlaatuñu si kenn soxlaatuñu maire soxlaat bu suñu suuf bu fi kenn dikk sinon bakkan lañ fi suñu bakkan bi lañ fi teg amul ma Samba amul ma Demba suñu suuf la ñu soxla suñu suuf la ñu soxla suñu suuf la ñu soxla amuñu kër amuñu hôpital amuñu case de santé amuñu juma amuñu terrain de football amul benn activité boo xam ni nit dana def mu am si dëkk bi amul amul armel amul dara fi amul dara lu fi am amul kura, amul ndox dëkk baangi ni poto yaangi ni amul ben ndox bo xamni ni am fi suñu kër lu mat 11 personnes nga fi amatuñ fu ñu depuis 2003 2004 ba léegi ñu ngi mol ba daaw laa mujj mol fi mol ya jëkkon mul lepp yaq mi ngi ne suuf ba mol ca tot mool yaa ngi fii yàqu boo bëggee dëkk maire euh, ñëw fii indil la ay seytaan yoo xam ni kenn xamul fooy teg sa tànk soxlaatuñu maire àll baa ngi ni ampagaay yi maire bi chef de village moo ko lotis loo woon dëkk bi mu lotis ko ba pare wàññee ko jaay ko si suuf di ko jaay ni ko neex ay conseil bis bu ne nga gis nit ñëw taxaw ni fii maa moom te waa dëkk bi nga xamante ni chef de village moo moo moo ko lotis loo nangu ko jox benn parcelle mm-hmm. lépp wàññee ko naka fi ba sàmba soxlaatuñu Nous avons lijjanti déposé on nañ fa plainte plainte bi nag ba léegi amagul suivi amagul suivi ñu ngi koy bëgg ñu avons problème suufu Gabar 2 problème Nous lat la maire bi maire injustice ne fenn jaay doole fenn daal lañu bëgg nous avons beaucoup lañu bëgg mu benn fi ñu jaar gis ngeen ay lotissement ñu ngi ko garab dox nañ deux kilomètres yoo xam ne ñu ngi déparé si rond point depuis ñuy jógee foofu di ñëw ba léegi àll kese nga fi gis àll boobu suñu toll moom lañ soxla maire ñëw na bëgg ñu jaay doole bëgg ko jox ñeneen bëgg xañ waa dëkk bi loolu mooy suñu naqar préfet la ñu fa wut moom moo ñu woolu woon ndax euh, dafa am lu mu soxla woon laaj ñu problème bi ni mu demee ñu wax ko mu ñu ni ndax am na ay documents yu ñu yor ñu ni waaw ñu jébal ko documents mu ni moom lépp li nga xamante ni moom loolu la war si moom mook sous dana ko def bu fi kenn laalati dara donc ñoom waaw bu fi kenn laale ci dara ku fi dikk wut leen yat préfet nee na bu fi kenn laal dara ku fi dikk wut leen yat nañu bàyyi ba ñu régler problème comme que ñoom ñi ngi ak dossier yi daan ko jël en main régler suñu suuf la ñu soxla jam yoo di nañu bàyyi suñu suuf soxlaatuñu mètre soxlaatuñu téeméeri kër soxla ñaar téeméeri kër suñu suuf la ñu soxla au point suñu suuf la ñu soxla doy na sëkk sàcc bi rajo man maay chef de village Mahamadou Diop chef de village Kafar maanaam tey xale yi li ñu taxaw di ko dénoncé ah, lu war la seen droit la ñu def ndax man maa defoon demande bi 2003 pour njaboot gi am fu ñu dëkk loolu ba ma ko defee léegi yàgg na am na ba ma defee am na juróom-ñaata at yi nga xam ne kenn recevoir ma ci déposé naa ku ne yóbbu naa fa dossier bi pour ñu wutal ma njaboot gi fu ñu dëkk xale yi nag yadduma leen parce que ñoom dañ ñoom ba ma def demande bi boobu ay xale yu ndaw lañ tey ñu ngi ci 2024 kon am nañu 18 ans kon war nañu am nañu jabar ñii am nañu doom amuñu fu ñu dëkk kenn ku ne sa biir kër papa nga nekk di bokk te nag loolu damaa yaakaar ne war naa mën a jeex ci réew mi léegi li ma bëgg moo di xale yi li ñu bëgg laa bëgg man sama njaboot gi rek laa yow ma fenn ñoom dugguñu gaal agressé wuñu defuñu dara ci tool yi la ñu nekk di liggéey daan seen doole kon loolu la ñu am nit nag fa mu am cosaanoo fa ay baam juddoo fa ay maamam juddoo fa ñoo bokk fa nekk bu ñu sañoon am fa fu ñu mën suturloo ba bala yàlla di ñëw ci ñoom li nga xam ne moom moom laa jëkk daje ak maire moo di dama bind demande bi jox ko nekk dama bëgg ko ma lotissé mu téye demande bi juróom-ñetti at bay nu am fii problème suuf mu convoqué nu centre bi mun convoqué centre bi ma yóbbu dossier bi ba ma demee commandant recevoir na ba ma léegi ma génn dossier bi jox ko ni ko demandé naa ko 2003 mu sot dossier bi ni ka ah yow maire ñii defal leen seen lotissement ñu dëkk gannaaw dañu bëgg a dëkk ah mu fa la fa la fa la wàcc nag commencé nag ni na danaa ma lotissé fi deux tonnes ciment ñu mool ko fii ci sama biir kër ma toppatoo mool yi ba ñu wow dégg mu yebal fi waa Descos la xaw ma ñu ñëw fi ba ñu ñëwee ñun ñu ñu ñun xool dëkk bi def def def affaire dëkk bi yëpp ñu xool ñu ni ma léegi ah daañu fi dellu si ba ñu dellu si waatee ñëw présenté waat ci man mosuñu ñëw te jaaruñu ci man ba yi ñëwee jaar ci man ni ma léegi dañu bëgg def lotissement bi maire moo nu yéen ma ànd ak ñoom mu am ñetti fan ñu loti ci côté bii loti ci côté bii ba ñuy demee ba lotissement bi pare ñu ni ma léegi kat ah, daanu yóbbu plan bi daanu ko defar yéenee ko maire bu ñu ko indee maire ci commune bi dana la woo jox la li nga xam ne moom nga war jox say dëkk li ci des bu ko dee jaay mu jaay ko bu ko kon ma daal d'accord ci loolu toog di xaar toog di xaar toog di xaar toog di xaar joxuñu ma dossier joxuñu ma dara indi lu ma leneen ba léegi ba léegi ba léegi ñu nekk ci loolu nekk ci loolu bay yàgg léeg-léeg mu gis oto gaare ah mu ñëwee wu ni man maay chef de village bi nuyoog ñoom lu ngeen doon xool fii ñu ne doon doon fi am kër ah lotissement bi naka chef de village def ba pare toog di xaar léegi gisul ku ko jox kër yéen ngeen ñëw war fee am kër te man xaw ma ci dara loolu mënta ne foofu la sama xeex commencé ak maire ma def samay plainte déposé naag dem naa ba of na ndax rek bëgg ku ma wàllu amul na kilifa gu ma joxul dossier bi Sénégal gépp ku fi nekk ki nga autorité nga wala nga am bureau sama dossier bi dugg na foofu ndax bëgg a jàmm commune bi ñoo dem daj foofu ni léegi dañuy wate Kabar 2 lotissement am suuf ba am na wër léegi kenn ku ne dana joxe cent mille francs fi ci parcelle bu ne ba ma yëgee ma dem réunion nu tasi fa dugaluñu ma ci waaye ma sànni fa sama kàddu ma ñaan paru ñu may ma paru man leen lotissement Gabarra 2 de bu ngeen ko defee ba man booba léegi joxe leen benn résultat joxu leen ma dëkk joxu leen ma dara wanu leen ma daal te léegi yéen nee nañu da ngeen ko da ngeen ko def euh, euh, euh, cent mille francs loolu na mu demee léegi cent mille francs boobu ngeen def mu naa man leen amul ci benn commune deuxièmement moom fi ñu ko def gargeek tundak ay séngak ay garab ak lépp moo fa ne am kër tey ñu joxe fa cent mille franc nga dugg fa war defar sa kër da nga fa fari fanweeri junni sa kër du set kan kooku boobu lotissement moom doy na waar waaye nag loolu maire teg ko rek nu tegoo ti nag maire fi ma jaar ak moom daanaka xajul sax ci émission bi nag parce que ndax moom fi ma jaar bari na ndax awa bookum recevoir nanu lew na bu mu fees sogaa wan recevoir ma ànd ak imam ak ñii pour ñu waxtaan rek ci ci lotissement léegi ba ñu waxtaan aw boo ko ni ko man de dama bëggoon nga waxtaan ak chef ngeen juboo ci ay conditions ndax ngeen jox leen fi ñu bëgg ndax ñu mën dëkk mu ni ko ñii booba nga bàyyi ma ak ñoom parce que dama man lotisi naa montagne Potou lotisi naa taare nangami lotissement parcelle ti kenn waxu ñii ma lotisi Dagobar 2 ah juróomi téeméer parce que ñu nekk fii di coow dañu may saboté léegi bàyyi ma ak ñoom fukki kër daal laa mën a jox fukki kër fukki kër mu ne ma fukki kër laa ne ma ne ko soxla wu ma fukki kër. fii li fi nekk moo di dafa dafa bakkane parce que suuf si leer na nooy na am na ndox. am na lépp am na géej am na suufu xur am na suufu joor lépp ngi ci fiir kon xemem place bi doo nga tax ñu ñëw di dugg ci ngar gi di fi indi ay patron ñu fi dëkk ñu fi bëgg dëkk loolu donc. loolu li ma si bëggoon a wax rek mooy que dama fi ñëw pas en tant que responsable politique mais dama fi ñëw en tant que citoyen. dëkk si gox bi dëkk dëkk lew na donc suñuy mbokk dëkk fii ñu jël seen suuf di ko saax saaxee looloo tax donc nu am si taxawaay bi ànd see képp kuy mu jiite mouvement fii si koñ bi ànd fi ak képp ko xam ne nii yaa ngi fi jiite responsable euh, rek parti politique moo xam donc parti au pouvoir la moo xam parti opposition parce que am na combat yoo xam ne nii jotewul ak dara politique c'est un combat citoyen te loolu nag da leen siy fekk si donc ba ba donc ba solution di am suuf si yéen a ko moom keneen moomu ko te droit dañ naan li nga moom mook sa bakkan bi mooyam donc ku bëggoon a ñëw jël seen bakkan bi day day jaamaar la moom donc seen suuf si également keneen ku bëgg a ñëw jël ko te teg ko fenn jaamaar loolu leen ak moom lu na leen jaral lu nekk donc ni olof di wax rek mbaj mbéjum kanam donc borom moo koy fajal boppam te loolu nag ginnaaw yàlla yàlla def na réew mi soppeeku na en tout cas yaakaar naa dañu si am ndam parce que bu ngeen gisee dëkk décret présidentiel bi génn semaine bi passé mu gis ni littoral bi noo ko doon saax saaxee si lu tegul fenn mu ni lépp luy construction wala vente de tere nañ ko arrêté si littoral bi donc loolu ba mu koy wax yaakaar naa donc xalaat na fu mel na gabaar gii. parce que fu mel na gabaar tey boo xoolee ñi fi ñëw naan dañ fiy tabax du kenn moo fi dëkk. ay nit ñu jóge fenen ñi Dakar ñi juga sax ñi sax extérieur di yoni seeni bok ñu ñew naan dañ fi tabax talo ke ñom seeni dom no noo ngi fii wara am kër wara am armel li gëna graw armel sax amuñu ko parce que donc fu nu war dem pour kii ñu ni leen du fi du fi ta suuf si nu ko lolu nak mom la bëgg mu jeex xam nga lan lan lan bëgg moy kan autorité autorité nan ñew donc xam situation bi xam fi Nous avons bëgg également fait nu audit foncier sur la commune Léon. Nous avons invité vraiment donc les autorités étatiques à commencer par le président de la République le président ministre Ousmane Sonko à tous les services de l'État nañ faire un audit foncier donc de de la commune de Léona hein, sous l'air de parce que les li fi am trop donc scandale sur scandale chaque fois buñ buñ waxé rek après donc autorités ne peut pas bàyyi mu lool ñun